xale bi bégal sama askan Ladoum waa Ladoum TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte ak contentement tey ñoo ngi fii ci yëmbal waaw euh, deuxième édition association des passionnés de moutons de l'élevage waaw tey ñoo organisé woon seen euh, deuxième édition bu seen waaw mu nekkoon seen deuxième édition journée scientifique waaw ñu fas yéenee dugg ci biir nag wan leen gars yi li ñu fi liggéey télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ding ci gis pap jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wergu yaram santé animal gisaytu sama mi dundee jox la kàddu mbokk yi ak xarit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di tatagal ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay programme bi nag xanaa rek ñu fàttali ne dañuy dérouler la deuxième édition bu APM muy deux journées scientifiques yi nga xamante ni daaw lañ ko tàmbali woon yàlla def mu amoon succès lool ren ñu daal koy defaat muy la deuxième édition fas ci yeneen nag ren ànd ak ay kilifa yoo xamante ni seen tour entraîné à jamais dans l'histoire de l'élevage du Sénégal ci biir journée scientifique boobu nag gis ngeen mbokk yi nii ci programme bu yaatu am ay vaccination mais également am don de sang ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne dugal nañu ko ci biir euh, programme bi mesdames et messieurs dañuy ñëw dugg nag léegi ci li nga xamante ne moom mooy la cérémonie officielle bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqima siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim haadihi hadiyatun bi fadlillahi minna ilayka ya rasulullah jaza allahu ana nabiyina wa habibina wa shafiina inda rabbina sayidina wa mawlana muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bismillahi rahmani rahim qul huwa allah ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad walam yakun lahu kufan ahad bismillahi rahmani rahim qul huwa allah ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufan ahad bismillahi rahmani rahim qul huwa allah ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufan ahad bismillahi rahmani rahim qul huwa allah ahad allahumma anta alwaahidul ahad mufarradiyu yaa salaam yaa salaam sallim nii min aafaati duniya wal aaxira yaa qahaaru yaa qahaaru iqhar lii adduwii waj'al nii qaahiran ghayra maqhuurin waqfi nii sharra maa ghadaytahu yaa kariimu yaa kariimu yaa kariimu yaa kaafi ajib yaa hanshaq yaa yulu hala un allahumma yaa man lam yalid walam yuulad allahuma ya man xalaqal walada ala alwalidi wa sakara wa zakara wa nunsa fi larham wa xafaytuhuma fi lwaham maa laysa lahu xalqun mamdudun allahuma ya halimu ya latifu altufni allimni li xawaidi waafi anni waj anni xanaanan ya salaamu ya salaamu ya salaamu allahuma axfir lahu warhamahu allahuma axfir lahu warhamahu allahuma axfir lahu warhamahu allahuma axfir lahum warhamahum allahumma axfir lahum warhamahum yàlla na leen yàlla yërëm te yéexañu yàlla na yàlla yërëm suñu mbokk yi ñu jiitu yàlla na yàlla yërëm ki nga xam ne tey jii moo waral ñu def lii jatu bali di baayam tey jii baayam de nekku fi de mais de ki mbay jonn mu ngi fi di xaritu baayam ndeyam mu ngi fi nekk fi ki nga xam ne mooy waajuram bu góor Garan Coulibaly yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na yàlla yërëm waa dawla yëpp yërëm suñu mbokk yëpp alhamdulillahi rabbil alamin amin hmm? donc Mass Fall yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na yàlla yërëm Mass Fall na yàlla yërëm Mass Fall yërëm waa dawla yëpp yërëm jullit yëpp bi jaahi seydi wujud bu ñu paree ci loolu nag euh, li nga xam ne moom la DJ bi wax di maître de cérémonie Kocc programme bi dañ koy dooree ñaan ñaan nag mooy ngànnaayu jullit adduwaawu silaahul muminin te am naa yaakaar mbir mi moom ala daaw me na ba pare fii jàmm rek moo fiy am jàmm rek moo fiy xew ci kàttanu suñu borom donc nag gannaaw bu ñu dàqee seytaan awuzu billahi min asheytaan rajim nañu def fatiha ñu baamtuwaat salaatul fatiha wala salaatu bu waay man ñu def ko adiya sallallahu alayhi wa ñu ñaan jàmm ñu ñaan jàmm parce que jàmm rek moo am solo mënuñu def dara te jàmm nekku fi réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm gox bii ñu nekk kook ci am na lu mu ci wax muy goxu laayeen yi fii gox bu tedd la fii goxu diine la goxu Seydina Limaamu Laay la fii gox la gox la gox bu am solo la donc ci barke gox bii ci barke suuf su tedd sii yàlla na fi yàlla def jàmm lii nga xam ne ñu koy def tuddee ko ki nga xam ne nag mooy parrain bi député bii muy député bu mag bu nit ñi am yaakaar ak marraine bi nga xam ne moom mooy Diatou bali kon wax nga ko elle n'est plus à présenter donc dama bëgg ñu def fatiha ñu def salaatul fatiha ñu ñaan yaa salaam juróom-ñeent yoon ñu commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim ñu jeexale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin yàlla defal ñu ci fawzul azim muy succès bu rëy rencontre yi yàlla na nekk rencontre yu am succès yoo xam ne ci anaalu élevage dootuñ ko fàtte ba mukk parce que yaakaar naa de grands actes seront posés et ki nga xam ne moom moo koy posé borom xam-xam la yàlla na la gën a leeral xam-xamam xam-xam bi nga xam ne war na ko fi génnee tey ci journée scientifique yi yàlla na nekk xam-xam boo xam ne dinañ ko dégg taataan ko mën ko jëriñu waxuñu rek ñu wax fi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 arrahmaani arrahimi maliki yawmi ddin iyyaka nahbudu wa iyyaka nastain ihdina sirata almustaqima sirata allazina anamta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala ddallin allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima fi l alamin innaka hamidun majid allahuma salli ala sayidina muhammadin nabiyi lumiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim allahuma salli ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim allahuma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayidina wa shafiina wa maulana muhammad aafiyati ru'uusi wa tabridiha wa tibbil uruqi wa safiha wa shifaa'ul uyuudi wa munawwiriha wa sukunul amaali wa mazhariha wa ruuhil aafiyati wa miqdaariha wa ala aalihi wa sahbihi salaatan tasfi biha zahirana wa batinana min jamil alal wal asqaam wal awraad amin ya rabbal rahimin allahumma salli ala sayidina muhammadin alfatihi lima uqliqa walxaatimi lima sabaq naasiri alhaq bilhaq naasiri alhaq bilhaq naasiri alhaq bilhaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala aalihi haqqa qadri wa miqdaari alazim haadihi hadiyatu min fadlillahi minna ilayka ya rasulullah qul aawuzu bi rabbil falaq min charri ma xalaq wa min charri gaasiqin iza waqab wa min charri nafaasaati fi luqadi wa min charri haasidin iza hasad qul aawuzu bi rabbin naasi malikin naasi ilaahin naasi min charri lwaswaasi alxannaasi allazi yuwaswisu fi suduuri nnaasi min aljinnati wannaasi aawuzu bi kalimaati llaahi taamaati min charri ma xalaq bismillahi allazi laa yadurru ma'a ismihi shay'un fi lardi wala fi samaa'i wa huwa samiu alim laa hawla wala quwwata illa billahi alali alazim inna waliya allahu allazi nazala alkitaaba wa huwa yatawalla saalihin hasbi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 ñoo ngi sant suñu papa ma sekk Gueye ak euh, baay Mor Gueye mag ñi ci nekk ñëpp ñoo ngi sant di leen gërëm di wax thème bi l'union des éleveurs vers des grands ensembles moo nekk thème bi ku nekk nag am ci sa part ku nekk am ci sa wàll mën naa wax képp koo xam ne teew nga ci salle bi am nga loo ci mën a def ñu de ko dégge comme ni ma ko waxee rek ñu defee ko noonu képp koo xam ni rek yaa ngi wax nga wax lu jëm ci thème bi ñuy mën a root root ndax lépp li nga xam ne ñi ngi koy bëgg ci bis bi ñu mën ko am maa ngi nuyu ñëpp di dalal ñëpp di ziare ñëpp di wax ñëpp kontaan nañ di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. ngeen tàccuwaat président bu baax a baax s'il vous plaît. l'union des éleveurs vers de grands ensembles. moom mooy thème bi nga xamante ni moom la ñu développé parce que yéenee waxtaani lan mooy l'union des éleveurs vers de grands ensembles bu ci kanamee tuuti ñi nga xamante ne. ñoom la seen xam-xam màcc ci wàllu woowu danañ ci déroulé bu baax a baax ci loolu nag ñu ngi souhaiter la bienvenue au grand monsieur docteur Niang ñu ngi lay tatagal ñu ngi lay jox sa wàccuwaay gis nañu la ak sa délégation une très forte délégation docteur Niang toujours égal à lui-même ce grand monsieur borom cercle des éleveurs de la banlieue mi nga xamante ni ci élevage waaye ni tamit ci li nga xamante ne daal mooy développement socio-économique bu Sénégal kenn du ko ci fàtte may ñaan bu baax baax docteur léegi nag ñu ngi jox kàddu gi kii nga xamante ni moom moo fi teewal monsieur le maire Bara Gaye salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu assistance bi yëpp di leen ziar di leen baalu àq di ñaan yàlla na yàlla boole jéggal ñu ngi nuyu le président de l' association des passionnés des passionnés de mouton du nuyu marraine bi jàttu Coulibaly bu baax a baax du nuy parrain bi euh, l'honorable député euh, Samba Samba Demba Ndiaye di ko ziar bu baax a baax du nuyu ñu fi nekk ñëpp mag ak ndaw góor ak jigéen di nuyu sama benn collègue rek wala sama benn copain boo xam ne ñoo màggandoo ma gis si jotaay bi muy lamin Lay di ko ziar nga xam ne c'est une personne très dévouée derrière le maire de Yeumbeul Nord di ko jàppale bu baax si wàllu liggéeyam maa ngi lay bu baax di la ziar dañ fi ñëwoon tey en tant que chef de cabinet du maire Bara Gaye yàlla dogal mu am empêchement bu ndaw mën nañ ko fa jiitu xëy na balaa yëfi di jeex moom dina ñëw bi mu ñu woowee na nañ ko fi fekk sax ñu woon si yeneen mu ne lu ngeen doon def bàyyi leen ko ngeen daw rapidement représenté ma fële si association des passionnés de mouton ndax man mii maa war a ñëw mais dama am mais jiitu leen ma ma ñëw ànd ak son conseiller monsieur Ibrahima Fall fekk fi son adjoint euh, sunu papa euh, monsieur Babou mu ngi ne la si ginnaaw toog suñu teeloon xam ni mi ngi fi sax monsieur le maire lim ñu sant dañ ko koy jox rek mu wax ko parce que moom mooy soo son adjoint li mu ñu wax ne nañ ko jiital si gàddu mooy bu ñu demee nañu encouragé ñi nga xam ne ñoo organiser lu rëy lii si commune am nga xam ni élevage. kenn ku ne xam na ni bokk na ci piliers yi nga xam ni mooy yokk économie réew bokk na ci piliers yi yokk économie réew donc bu amee ay jeunes walla ay passionnés yoo xam ni ñoom ñoo koy jooxel ci goxam moom jaadu na mu encourager leen féliciter leen wax leen ni tamit ne lépp loo xam ni moom nekk na à son à sa disposition pour mu leen ci taxaw n'hésitez pas ñëw leen ngeen waxtaan si ak moom. moom mu taxaw si loolu. député Samba Demba Ndiaye madame la marraine madame Diatou Coulibaly consultante internationale monsieur le représentant du RENADES monsieur le représentant de la FENAFO monsieur les présidents des associations sœurs euh, monsieur les notables et autorités coutumières, chers invités. Je suis très honorée ce jour de prendre euh, la parole au nom du directeur général du réseau PAMECAS, M. Mali Diop Ampliché, à l'occasion de la deuxième édition euh, du week des journées scientifiques de l'Association des passionnés de moutons APM. Nous nous félicitons en tout cas du choix porté sur notre institution pour participer à cette importante activité. Mais également, vous avez tous les encouragements de Monsieur le Directeur Général. Cette belle initiative. Euh, PAMECAS, comme tout le monde le connaît, est un réseau de systèmes financiers décentralisés présent sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est un système financier décentralisé de type coopératif qui totalise plus de 750 000 membres, avec plus de 100 points euh, de services répartis sur tout le Sénégal. De multiples produits et services d'épargne et de crédit sont conçus pour ses membres et ses clients, mais que nous accompagnons également avec des produits non financiers. On peut citer euh, les, la mutuelle de santé, l'assurance vie, Euh, on peut également parler des transferts d'argent, entre autres. On peut pas citer tous les produits et services non financiers euh, qui, sont euh, offerts à nos membres. Soyez assurés, mesdames et messieurs les membres de l'association, que nous sommes disposés, PAMECAS, à vous accompagner et nous pourrons continuer toujours à travailler ensemble sans relâche avec vous, et ce, pour le développement de l'élevage au Sénégal. Pametas, la finance sociale. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Dina saytu sama laanu mi dunde fii ci Ladoum TV. TV jox la kàddu ngi nga mën a wax sa jaar jaar danga ko seetaan bu la dara raw. Mm. Visibilité dinga ko am promotion dinga ko am nanga wane sa bopp. Tu aimes son jaja bi nga àndam Ladoum TV télé askan bi femelle Ladoum moo ma dese woon parce que j'avais vendu tous mes sujets mu ne ma indil sa femelle ma may la tëb mu may ma tëb ci Prado ñëpp xam nañ Prado lu muy jar ci million ñëpp xam nañ valeur Prado doomu Koromak sëtu Al ma am ci ñaari seex yu góor ma tuddee benn bi Samir benn bi Yonis ndax Samir ki ma may te mu ngi tudd Samir Yonis donc maa ngi di jox Yonis parce que c'est de solidarité moo tax ma am lii lii nag maa ngi koy may am na 4 mois et demi feral naa ko ba mu ñëwee fii di ko jox waa APM bés bu màggee ngeen toppatoo ko képp ku ci bëgg a tëblu yéen a ko moom su ma ci bëggee tëblu dinaa dellu si waat. tàccu leen loolu waaye ça c'est très Pape Diagne Falloun émission defoon ay exposition ay exposition yu yu rafet waaw def nañu journée don de sang def nañu consultation euh, euh, depuis euh, journée de sang consultation gratuite waaw macha allah daal def nañu liggéey bu ama am solo waaw association bi moom liggéey nañu liggéey bu am solo waaw mu nekk seen deuxième édition ak waa Ladoum TV ca kaw ca kanam promotion dinga a ah. nanga wane sa bopp ci émission Jaaja bi nga àndam Ladoum askan bi mooy wane fi nga mëne ndax ñëpp xam Ladoum TV mooy sunu télé